mbër sa dafa tàng wala coow gi sànq ci géew non dafa leer mënul ñaax lool euh, mooy làmb lool mooy fem bi euh, dafa leer loolu mooy fet loolu mooy femu làmb ji moo tàng wala lan waaw waaw waaw gis nga xam nga doomu pël moom boo ko tuuree soow rek bi day tàng deret bi day tàng se normal non du yàqu loolu neexal la rek du mos a yàqu bañoo bañoo dañuy bëre dañuy bëre même ma xaañoon sax dóor ma dañuy bëre billaay wallaay. <laughs> ana Thian. Thian waaw waaw yow da ngay yéex nag quoi da ngay baax nga ñëw. mbër maa lay siyaar Sarko. Thiar Baye damay ataaya Baye. da ngay a bëre léegi di Thian. damay ataaya sama gars yi laay Thianal. fee yomb na dama koy gérer. fee yomb teg baraat. waaw gis nga. lii ñaata ñaata kii ngay xeex. gisoo ni ñuy ànd ni lu bëree. ñëpp a siy naan dama Baye Mandione sax bu bëggee waa ñu may leen si jaay dafa leer. wax Baye Mandione. ah. wax Baye Mandione. Baye Mandione lu ma koy wax lu dul dem confirmer ko li ñu doon wax lépp moo ci des dara des. wax jeex na wax jeex na jëfa des. si. xeex wala da lépp su ko yombalee rek duñu duñu xeex mais bu ko jafalee rek ñu xeex. bul sonn ci moom lay dépendre rek mu yombal ko rek mu jeex bu ko yombalul nag moom mooy loolu sarax ndongo rek wala mu tëb ak dooleem. loolu bi pareeku. loolu bi jàll na deuxième bi moo des. deuxième